jamono. non c'est pas facile nag yombul moom xam nga àdduna moom gis nga àdduna lépp choix la papa. Mhm. il faut juste avoir la tête sur les épaules. Mhm. tey dafa am ci ci yenn. ay dafa ay yoo xam ne soo ko dundee. Mhm. dara du dara du la saf. dara si àdduna eh, man dama bokk si si si si loolu. comme genre comme genre parce que je suis dans une famille très modeste. une famille modeste. mu metti woon quoi mu metti woon trop. Mhm. ñu nekk ak sama yaay nekk ak sama papa mu metti woon trop. Mhm. man sama yaay bi muy sëy si sama kër papa néegam amul woon bunt amul woon fenêtre rideau la amoon. non donc ak ak yeneen ak yeneen ñun bi ñuy nekk. ak sam papa donc mooy moo tax toujours mooy wax ne man ñun dañuy sant sam papa di ko gërëm parce que mhm. def na de telle sorte que ñun tey mhm. ñeewuñu suñu benn moroom fexe na ba wutal tabaxal ñu kër même bu fekkee mu nekk kër boo xam ne kër bu modeste la. Mhm. am nañ kër boo xamante ne fa lañ nekkoon mu nekk deux chambres. il paraît que ay parents jàmbaar nga am nga amoon malgré que neexul woon bu baax mais terewul dañ doon góorgóorlu pour jox leen. li doon papa musul bëgg musul musul bëgg lu ñu naxari. musul ko bëgg moom. moom mbégteem yëpp mooy ñun ñu nekk ci jàmm mhm. ñun boo ñu fekkaan en ñun rapport bi ñu amoon ak sa papa sax amuñu ko woon ak sama yaay mhm. sa papa bu daan tëdd si lal bi ñun ñëppay ñëw tëdd si si wetam même xaritam yi suñu ñëwaan ndeysaan fekk naa Ousmane man damay des fois damay ni nga mel ak sa njaboot bi <laughs> c'est mhm. c'est dafa dafa dafa neex quoi donc moom dafa nekkoon ku ku ku am solo si si ñun moo tax demam aussi nekk lu métti si ñun mais yàlla parce que yàlla aussi moom mooy moom mooy moom moom ay jaamam commande ma ñëwaat ci ci ci loolu am na loo xam ne soo ci jaaree dara mënu la saf ñun ñaari néeg lañ amoon suñu kër sama papa si néeg bi néeg ak saal du moins sama papa si benn néeg bi lay fanaan ak sama yaay ñun ñu lal ay matelas donc xam nga loolu loolu loolu loolu dara dara. dara du la jaaxal. dara du la jaaxal. Uh-huh. loolu dara du la saf si àdduna parce que tu as vécu des moments yoo xam ne ay moments yu métti la. Uh-huh. mais mooy que ne jigéen bu nekk war ngaa sàmmal sa say njaboot. Uh-huh. way woo xamante ne nii bu leen dëddoo. say doom buñ koy déggee nañ kontaan donc mu nekk mention spéciale suñu yaay fat si que moom aussi tey moom moo ñu xàllal ba duñ dox fenn ci àdduna. dégg lu dégg dégg lu ñaaw ci moom. wala ñu wax lu. lu ñaaw kon kon loolu moo la poussé nga ni il faut nga il faut nga rey sa bopp il faut nga nekk gaynde man loolu moo ma poussé parce que man bi ma la découvrir bi ma man loolu la gisul ci ay nekk jigéen góor. Mhm. man des fois dama naan man suñ ma nee yow bëri ay gestuelle jigéen d'accord parce que man dama dama xaw a. waaw da nga nekk da nga nekk góor quoi parce que man je me tout le temps. sama papa amul doom bu góor mais man maay nekk doom sama doom bu góor. donc ci mindset boobu nga doon dox. loolu ci loolu ci loolu laa laa laa mës a dox. Mhm. donc man sama rêve bi ma amoon mooy fexe ba tabaxal sama baay kër. yàlla dimbale na ma ah, ñun ñëpp ay ñun ñëpp ay jigéen lañ. yàlla dimbale na ma ba oh avant sama papa ak sama yaay dafi jugee yàlla dimbale ma tabaxal naa leen kër. sant yàlla li may regretter rek ci sama sama vie. mooy le fait que yóbbu ma sama yaay. Oh maaka mais demal nga leen de toute façon. loolu mooy l'essentiel waaw waaw loolu rek laa loolu rek moom sama sama disparition yaay. ak sama papa mooy le fait que ma sama yaay maaka loolu moom en fait dafa dafa dem ba nekk kii si man. genre genre. da remor remor lay nekk. remor mais nekk remor parce que. jamono bu ne ak la cay xew jamono te moom période boobu sama papa il était malaat tëdd lu yàgg mënul mhm. woon dem fenn mënul woon bouger mhm. moom aussi après mu xam nga rek boo yoree malaat au fur et yow aussi da ngay dem ba nekk da ngay dem ba nuru malade sax da ngay dem ba nekk malade mhm. donc loolu moo tax mais sant yàlla bu baax est-ce que ça veut dire que ça te fait mal le fekkee le fait que euh, fekkee wuñu bu baax walla jëriñoo wuñu bu baax succès wu ay sama sama mariage le fait sama